asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ngi nuyu képp ku fi teew muy nuyoo bu ñuy démarrer ci le directeur général de l'ANAMO ci est un frère un frère au maire de Thiès qui est son ami date di nuyu képp ku jiite kuréel teewal fii kuréel googu muy association yi muy mouvement yi fi teew muy kilifa yi fi teew am naa nag benn sañ-sañ sañ-sañ bi mooy mesurant la profondeur des relations qui existent entre le DG de l'ANAMO El Hadj ak le maire de la ville Talla Sylla ma weñ loxoom tey comme fekk na ma fi man may directeur de cabinet du maire ma weñ loxoom ni ko yaay waxal maire tey li tax muy waxal maire man xam naa ko kon DG man damay dalal gan ñi rek mais xamal ni yow yaay dalal sa gan te yow yaay seen pare fi ma ko teg xam naa ko di nuyu suñu mag ju baax joo xam ni démb rek maa ngi koy tudd suma biiru parce que Sidaat dafa ñëw bu Youssou Ndour ñu toog di waxtaan mu may génneel ay photo ba génneel ma photo boo xam ni moom El Hadj Sidi Diakhaté ngénte bu yàgg la ma ne ko kii de moo ma yar man ak ma yar ndax je rappelle coïncidence pour coïncidence El Hadj mi je me rappelle bien ay li may wax nag ay ñaar fukki at ci ginnaaw la daanañ ko fekk man ak Talla la mu toog ci boutique bu Sidi Jaxate bi nekk si Moussa ñu waxtaan ko tuuti dem booba ñu ngi ci suñu wër yi nekk opposition di def suñu yëf yooyu ñu daan def kon coïncidence bi def tey ñoom ñaar ñu daje fi te dem may waxtaanee kii du hasard puisque le hasard n'existe pas ci sama gis-gis di nuyu ñëpp képp ku fi teew di wax ni maire sànq bi may waxtaan moom ci téléphone mi ngi am lu ko metti ci ñàkkateewam d'abord malaat bi mu yore di taawam di ko suivre depuis presque dix jours nekkul Thiès mu doon subir opération mais aussi ay liggéey yu mu doon def Dakar mu téye ko fa mais mu wax ma ni su ma ñëwee naa xamal mbooloo mi am na mbégte lool di dalal waa association taxawu làmb Thiès ak seen partenaire bi di FILS ak mbooleem partenaire bu ñu àndal ak mbooleem kilifa bu ñu àndal tey jii fii ci salle des délibérations de la ville de Thiès salle bi nga xam ni les grandes décisions qui concernent la ville de Thiès fii lañ koy jël mu leen di nuyu donc di am mbégte di jaarale nuyoo bi ci Isma mi nga xam ni xaritam la aussi di ko jàppale chaque fois que mu soxla ko ci liggéeyam di leen dalal rek duma ma làkk tubaab defe naa Maodo tey mooy làkk tubaab mooy wax sax wolof dama leen di dalal rek di am mbégte lool ci turu maire de la ville de Thiès di dalal atelier bi di leen ñaanal travaux yi nga xamante ni ci ngeen nekk moom ngeen di door tey jii muy séance de formation yu ngeen di prolonger après te ubbee ko fii Thiès yàlla na doon seen njariñ un lutteur un emploi nag je pense que bu ñu koy wax ñëpp xam nañu la problématique de l'emploi aujourd'hui qui touche tous les segments de notre société mais jàpp nañ ni lutteur bi citoyen la citoyen bi nag droit yi mu am la keneen am te il peut aspirer c'est pas que rek bëre bi muy def emploi la ci moom maanaam mbër mi war na mën di bëre ba pare yore di liggéey ci administration la haute administration di liggéey ci fépp foo xamante ni citoyen war na fa teew loolu moom problématique la boo xamante ni yaakaar naa ni seen waxtaanu tey dina ko dina ko dina ko dina ci indi ay xalaat yu rafet di di kontaan loolu di souhaiter la bonne bienvenue au non du maire de la ville di wax ne rek bi may ñëw aussi en tant que directeur de cabinet du maire maa ngi ànd ak l'intendant de la ville de Thiès Papa Demba Diallo. donc amuma kàddu yu may wax amuma lenn lu may wax lu dul dalal leen di leen ñaanal mais di jox suñu frère nag moom moo yore mbir mi moom mooy maire tey man maa ngi si ginnaawam parce que je sais fu mu teew maire nga fa fu maire teew moom ma nga fa encore une fois jërëjëf. général de l'ANAMO monsieur la directrice du centre régional de la culture de Thiès. Euh, monsieur le président de l'association des fils formation insertion des luttes du Sénégal monsieur le président de l'association Taxawu Lamb de Thiès monsieur le promoteur Sidi Diakhaté et tous les promoteurs et monsieur le directeur technique euh, national de lutte en exercice je dirais toujours parce que toujours il est dans les terrains monsieur monsieur Abdou Badji ses invités. Vous imaginez sans doute l'immense joie et l'honneur que j'ai ce matin de prononcer ces mots au nom de Madame l'inspectrice régionale des et au nom du président du CRG de lutte, M. Messeyaï. Permettez-moi à, son, noms de remercier et féliciter d'emblée toutes les personnes qui se sont investies pour l'organisation du forum. Je voudrais également avant tout propos, tout souhaiter la bienvenue et adresser nos salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à l'invitation de l'association Fils et Ande Taxawu Lamb de Thiès. Vous imaginez que c'est un réel plaisir que le CRG de Thiès et l'inspection régionale des sports euh, de s'associer à cette cérémonie marquant le démarrage et la promotion du projet Un lutteur un métier dans notre région. Dans du CRG de Thiès, je prends l'engagement de ne ménager aucun effort pour vous accompagner dans cette entreprise hautement citoyenne et patriotique. Le CRG de Thiès est très honoré d'avoir été agréé comme partenaire. Nous invitons les autorités communales, départementales, régionales et étatiques à s'approprier à un tel projet. Un lutteur, un métier, qui à terme un sera un, une passerelle entre la communauté et de la lutte et le monde de la formation professionnelle et de l'emploi. Vivement la réussite de ce forum. Je vous remercie. Merci beaucoup. waaw dama koy tënk rek ci wala euh, asalaamaaleykum ñi fi teew ñëpp di commencer si monsieur le directeur général de l'ANAMO monsieur Maodo Malick Mbaye madame la directrice du centre euh, régional de la culture Marie-Thérèse, monsieur le promoteur Sidi Diakhaté et tous les promoteurs présents, monsieur le président de l'association FIS, monsieur le président Takarou Lambo, Ismaël Mou, monsieur le président du régional des managers, monsieur Khadim Sar, et tout, monsieur le maire, je m'excuse, donc ci Ngolor la jógee monsieur le maire de la ville, ñu ngi di nuyu bu baax. surtout madame l'inspectrice régionale des sports bi nga xam ni tey dafa am empêchement moo tax ñëwul ak monsieur le président CRG bi nga xam ne moom tamit dafa am ay tënk yu mel nii yu nekkaat ci beneen gox ci région bi ci fa dem teew comme li ma ko wax rek ci français bi mooy ni euh, ñu ngi gërëm association FILS muy formation insertion lutte au Sénégal di leen wax ni ñu ngi leen gërëm di leen wax ni fi ngeen ñëw ci Sénégal la fi ngeen ñëw war ngeen fay ñëw ndax am na ay lutteurs yu am bëgg-bëgg am na ay lutteurs yu am job yu fi nekk kon soo leen ñëwee fii vraiment ñu leen dalal bu baax di wax ni tamit ñu ngi sargal bu baax di nuyu ñi nga xam ni ñoom ñoo dox diggante bi ba mu tax muy que muy le président de l'association ana taxawu làmb ak ñamu àndal ndax président bi rek mënul dara waaye su ma jiitee Ismaïla Mbaw yu bàyyi na ñëpp bi loolu amee tamit comme ni ko Pamba yi bi coordonnateur bi waxee suñu defoon loolu ba pare doyul waaye lu ñu am kuñ ci àndal ndax ñoom yàlla dénku leen ni am nañu koom waaye am nañu xalaat te tamit euh, am nañu fi suñu borom teg ñoo xam ne tey jii nii yi réew mi ñoo leen fa teg ngir ñu jàppale xale yi suñu demee si ñoom ñu mel ni le directeur de général de l'ANAMO mu jàppal leen si kon dañuy wax ne ba tey tamit continuité la rek parce que fu nekk soo jaaree fa nga jaar di nga gis buntu ubbeeku soo fa duggee gis fa njëriñ mooy li nga xam ne tey monsieur le maire defal na leen ko fii ci salle de bi ndax su ko defee tey jii nii monsieur le gouverneur de la région la ko defal su ko defee tamit euh, madame l' inspection euh, l'inspectrice régionale des sports la ko defal kon ñu leen ci sant bu baax di leen si ñaanal te di leen wax ni vraiment taxaw nañu taxawaay boo xam ni ci CRG bu Thiès mooy lii nga xam ni commencé nañ ko fii foo leen ci bëggee këyit boo leen soxla loo xam ne dafa jëm ci lu jëm ci wàllu incha allahu rabbi lu ñu wax ni bulletin de naissance soo koy da ngay dem mairie waaye suñu nee bulletin de naissance soo koy wut da ngay dem CNG wala nga dem CRG soo leen ñëwee si ñun incha allahu rabbi dina lañu jox nit ki kan la ak fu mu dëkk ak nan la mel ndax lan moo war ci moom parce que nit ki tamit soo koy bëgg dimbali da koy wax nit ki nan la mel tamit d'abord parce que nit ñun yàlla daf ñoo dimbali si nit la ñuy liggéey kon war na ñoo xam nit ki ñu booleel ak ki ñu waaj a booleel nit kan kooku kan la loolu mooy taxawaayu CRG bi te duñ ci jógee ndax moo tax man leen man mi nga xam ne maa fi représenté CRG bi incha allah te man maa fi nekk tous les jours nga xam ni waa FIS après dañ ko ne liggéey bi waa taxawu làmb dinañ ko ne liggéey bi incha allah rabbi lépp lu si war dañ ko def di leen di gàttal foofu kàddu yi ndax euh, vraiment temps bi dem na bu baax di leen gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal yàlla na si yàlla def jàmm ci bis bi nga xam ni moom la ñu nekk nii jërëjëf. di leen jaajëfal bu baax di leen balu ak te di leen balu di am mbégte ak contentement tey nekk ak yéen fii mën a échanger yéen yoo xamante ni day jóge ci ñun ñi tàbbi ci yéen di leen jaajëfal bu baax ci nekkin bi ngeen nekkin nag ñun fii waaw ci biir loolu tey damay wax en tant que président association ak wax léegi tax ñu créé lii ba tey jii toll fii amoon na ba ñu ko créé yàggul mën nañu ci ay ñeenti weer la toll waaye yàlla mi ngi ñu dimbali teg ba ñu ànd ak ay mu ñu baax ba lii mën a tey toll fi mu toll. bi ci njëkk mooy ki nga xamante ne mooy El Hadj Djily ñu ngi nuyu bu baax di ko sàggal di ko wax ajaaraama ndax tey jii bu demee tey ba tollu fii du kenn yàlla jëmmal la te jii bu demee tey ba am du kenn ku moom yàlla jëmmal la ñu ànd seeg ñoo xamante ne aussi tamit ñu doy ñoo xamante ne aussi ñooy jàppale ci ndax def jàpp naa ni lii jàmmu yàlla ndax kaay ñu wutal la liggéey kaay ñu formé la wutal la métier dafa lay ba nit mën laa ràññee loolu ku koy def yaa ngi jàmm yàlla ñoo ànd seeg ñoo xamante ni ñu ngi tudd Bamba Mbuub muy koo xamante ni mooy président moo mu jël lépp ne dama ci ànd kenn ku yéen association taxaw naa bu Thiès ngir bëgg Thiès yëpp xam ne association ba am doole jot na Thiès buy jàppale lutteurs yi buy jàppale waa Thiès ci biir loolu ñu toog suñu biir néeg waxtaan ko ni ko war a ba yàlla def te ñu génn ko si mi tey ñëpp yëg ni association bi am na waaye nag dañoo ni aussi c'est grâce à Maodo nit ndax Thiès yaatu na lool bari na ay leader politique yi fi nekk lool waaye jox ma ma defaral la wala jox ma ma téyel la wala ma jox ma indil ma jàppale la loolu ku la ko defal desaloo ko dara te Mor jàpp nga ci bis bi nag ba mu réussir te di nga xamante ni ay góor nga ko sëkkal te àdduna bi dafa toll foo xamante ni bu fekkente ni kiy def ak ki dul def ñooy yom ñooy payoo kon jaratul ngay def dara Mor da ngaa def war a def muy ñii ku leen dimbali yàlla fay la ndax doon ñoo xamante ni ñu gëm seen bopp nañ te ñu bëgg aussi ci li ñuy nekk la te mbëri dafa metti te bëri du chaque jour la dina toll moment boo xamante ni day amaana. doo bëri mais bu fekkente ni dem nañ ba nga am partenariat ak Bamba te ñu war a mën a taxaw ni ngay nga nekk koo xamante ni yow yaay DG ana moom te mënoon ngaa ci loolu rek nga nekk carrément damay wàccax ci biir jàppale waat leen ngir nekk mën a réussir kon donc yow war nga war nañ laa delloo njukkal ne la jaaraama merci beaucoup. beneen bi des mooy dafa am ñoo xam te aussi tamit mënuñoo dem te kenn te te duñ leen dugg wala ñu merci parce que kenn ku seen jàpp nga ci. ci ñoo xamante ni ñu ngi nekk ñoom tey fii à Thiès muy waa Thiès Vision muy ñoo xamante ni tey dañoo taxawal nii ñu ñu lépp loo xamante ne mooy naan dinañ ko fay indi muy boisson indil nañu ko ndox indil lañu ko ñu leen di sant bu baax a baax baax ci geste boobu ñu def dañ ci rafet Xaadim Samb aussi bañ demee seeti ko mun ma kat carrément lii ngeen taxawal jaamu yàlla la te jaamu yàlla lu ci waaye def dërëmam na nga ko ko war sant ñu ko koy sant bu baax a baax a baax di gërëm aussi tamit Abdoulaye Dieye mi nga xam ne aussi tamit kenn demul mu des jàpp nañu bi ba lii mën a toll fii bi nga xamante ne nag mooy maire de bi nga xamante ne li tax ma teg Talla Sylla ci diggante bi digganteem ak Bamba ndax fii ñu nekk tey mooy te bu ko neexoon amaana mu ni ko bokk su boobaa du mais daa xam ne lii waa Thiès ak moom mu ni ne jarul ñu may tàggu saa yoo leen bëggee heure bu ñu ko bëggee jëlee ñu defee ko kon donc ñu ngi koy jaajëfal baax di gërëm bi nga xamante ne mooy Youssou Diop bi nga xamante ne moo fi teewal di ko jaajëfal di gërëm aussi Assane Fall bi nga xamante ne moo fi seen ñu ngi koy euh, jaajëfal bu baax a baax di wax Bamba merci beaucoup encore une fois lii rafet na te kontaan nañ ci trop association bi daal mi ngi nii association boo xamante ni la tey jii dañoo juddoo nekk Thiès te àndoo yoo xamante ni ñu gis jafe-jafe yi bëri di am Thiès moo tax ñu taxaw kuréel yi tuddee ko association taxaw la mu Thiès gis nañ li fi daloon moo dikko mu metti woon lool mu feebar waroon na faju moom ay jafe-jafe lool ba ki nga xamante ni mooy promoteur mag bi nekk fii Thiès danga koy jàppale ci lu bari mi ngi fii tey toog li may wax leer na ko parce que ñu ni ko ba ñi ñu taxawal lii ñu ni ko waxtaan seeg moom ne ko nag lii de ni ko bëgg a taxawal gi lamb Thiès amaat beneen xar kanam boo xamante dem avancement ci lépp ndax ku ni Dakar ne Thiès te bu ñu fekkee ne dem nañ ba créé association bi créé ko association taxaw naa ko Thiès dañoo bëgg tey jii fi ñu toll roi des arènes fii ak deux ans wala trois ans di yeewoo Thiès incha loolu ñu naan yàlla yàlla nañu mu d'accord loolu ñun ci kàddu ne carrément loolu ñu leen jàppale ba yàlla def te nga indi ñu lii kon dañ koy sant yàlla di ko gërëm loolu mooy kàddu yi nga xam te mënu woon nekk xam nga peut être man xëy dama damaa wax ci biir mbooloo waaye liñ ma sas rek mais li ñu wax sa ëpp na lii te li ma waroon ëpp na lii lu ma tàmbul nag moo tax mooy am trac tuuti ci biir su may wax mais ñu ngi di gërëm dañ jaajëfal bu baax di gërëm Maodo Malick Mbaye bu baax a baax a baax a baax ne nag yéen bëri lii ma leen di wax bàyyi leen ci xel bu fekkente ne nag kuy def ah daa yem ak lu def kon def amatul njëriñ te gis ngeen lu ñu leen defal nii jàppal leen ci lii bàyyi leen ci xel bu baax a baax te am na ñeneen ñoo xam ne ñoo tax ñoo tax pour ñu bañ a téye kàddu gi lu xam bëri ñun délégation AREMS lañ comme nu ko Ousmane waxee mooy représentant école ak écurie de du Sénégal ñu gunge suñu mag bi nga xamante ne ni dafa nekk ci AREMS muy El Hadji Djili Wade nekk doomu Thiès nekk conseiller numéro un ci association bi nga xamante ne ni taxawal nañ ko fi ñoom ñu ne dañ koy sargal mu wooñu ci ñun waa arène su pour ñu ànd ci ak moom xanaa di ci gërëm ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy association bi ci sargal bi nga xamante ne nii ñu ngi koy sargal suñu mag suñu xarit di suñu idol ndax boo demee au niveau de l'arène si ñépp dañuy wax Djily Wade mooy seen idol kon lii tey jéem wane na ko parce que nit buñ nee ndax baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax su boobaa loolu ñépp mën nañ koo dëggal te defe naa ni fii ñi ay ñooy ay mbokkam buñ dikkee tey jéen ba di ko fi sargal wax dëgg yàlla ñun lañu gis ak ñoom lañu gis lépp nekk na benn vraiment ñu di leen ci ñaanal bu baax réussite di ci ñaanal aussi tamit jii di wax yàlla guddal fanam ci li nga xamante ne nii décidé na ko di ko liggéeyal ci làmb rawatina ci gox bi nga xamante ni ci la nekk di jéggulu aussi tamit ci ñàkk gi ma gi ma xaw a tëb tuuti sii di jaxate bi nga xamante ne ni moo nekk promoteur du rail ku gisul tamit dégg nga ko ci liggéey bi ñuy liggéey ak ni ñuy soppalee làmb te kat ñun nitu làmb moom képp ku ñu ànd bu fekkente ne yaa ngay soppale làmb rek ñun bëgg nañ la vraiment daal maa ngi bëgg a guddal te xëy na jataay bi xaw na yàgg ngërëm li nag ñu ngi koy jiital aussi kon nu mu ko waxee woon ci représentant wu maire mais aussi tamit bàmma bi nga xamante ne ni moo initié lii yéen xale yi nga xamante ne yéen da ngeen nekk ay lutteur te nekk fii ci Thiès formation bii ñu leen di defal yàlla na nekk seen njiglaay yàlla na ngeen ko gëm aussi ndax formation bu baax la ndax nit day am métier métier ak xam-xam ñoo yem fépp fu ko waaye am rek fu mu munti dem dina ko jël te lii ñu leen di defal ñii di formation ñu ca Dakar lañ ko jëkke woon sama lutteur bu ñuy wax Tidiane Faye moom moo fa génnoon major ak ñett ñam àndaloon ba ñu paree ci lañ amee liggéey kon nag loolu nga xamante ne ni ñooñu am na ko yàlla leen ko yàlla may di lancer message aussi ci autorité Thiès yi nga xamante ne ñoo nekk fii pour ñu jéem leen a gën a jàppale bien vrai que ñi leen di jàppale selon ni ma déggee ni ñu waxee ba formation bi yéen Bamba di leen defal bu paree ci jàmm ak salaam ñiñ ci mën a ñu recruter leen wutal leen fu ñu ñu jéem caa mën a continuer dem liggéey ci seen bopp jëriñ ci seen ay way vraiment daal maa ngi gërëm aussi délégation bi nga xamante ne ni moom laa ànd ak muy vice président bu ARMC di Cheikhou Diakhaté ak Baye Mandiaye Ndour bu Thiaroye Thiaroye Thiaroye Germain maa ngi gërëm ñëpp daal vraiment tey sant ñëpp di leen xamal ne aussi tamit association bi dañoo war a sargal El Hadji ñun au niveau de l'arène suñu buggoon ko décorer bu yàgg te yàlla dogalu bu ko woon décoration boobu nga xamante ne ñeex moom lañ ko waroon a defal dañ koy boole aussi ak sargal bii ngeen koy defal lii ñu koy décorer dinañ ko teg ci loxo suñu kilifa ci jataay bi yéen muy Maodo Malick Mbaye mu décorer ñu ko muy El Hadji Djili su ko defee mu nekk doomu Thiès boo xamante ne ni sargal nañ ko ci Thiès arel si ñëw décorer ko doomu Thiès ñëw jox ko di woo aussi tamit vraiment école ak école de lutte yi nga xamante ne nii ñëpp ñu ngi ci biir Thiès ñu fexe nu ñu amee seeni coordonnées defe naa dinaa ko teg ci loxo président wu CRG pour nu ñu mën a rejoindre ces ARELS ndax ARELS kat association la bu nga xamante ne nii bu am doole la te bépp école ak écurie bu nekk ci Sénégal war nga caa mën a ñëw nekk ci membre ñu bokkandoo nekkandoo ci liggéey bi xàccandoo dóorandoo maa ngi gërëm ñëpp vraiment tey sant ñëpp kàddu yu gudd na te bëgg mu woon mu gudde noonu lu ci dëng man la Ousmane maa ngi lay gërëm bu baax di la sant Ismaïla ñi ngi leen di gërëm bu baax di leen sant Pambay ñi ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen souhaiter tamit vraiment bonne continuation yéen a ngi ci yoon bi yàlla na ngeen àgg ci jàmm wasalaam